jàngoro ñëpp ñu ñaanal leen yàlla fëgg seen bopp ñu delluwaat ci seen activité ñi caabi féete ginnaaw nekk ci bërëb yarukaay yi ñu ñaanal leen yàlla génne leen fa dara bañ leen faa dugalati waaye saa su ne rek xel sunu dem ci way dawlu yi ñu di leen ñaanal yàlla atte ci yërmandeem jéggal leen seen i bàkkaar tàbbal leen ci àjjina yi gën a kawe ci daraje yonent bi sallallahu alayhi wa di jaadu ci bépp kilifa diine boo xamante ni yaa ci àdduna bi toog jàkkaarloo ñun di ñu setaan di la bàyyi xel bu baax a baax di la gudu fan gu andak wer waye tam yalla bayila fi nga yag jité ci njabot gi lepp lo xamanteni tam yang koy nam ci jokk sa ginaaw ñu ñaanal la yalla katanal la ba nga mëna matalé lepp tek ñepp ci yoonu mbax yoonu njub yoonu siratal mustaqima mom lañuy xaar ci ñom yalla mi mëna jappalé yalla na ba askan wi ëlëk bu ñu borom bi mëna am naka non itam di nuyu di ziar bépp kilifa aada bo xamanteni jamono bi yaangi ci réew mi mo xam nguur gi la mo xam ku jégi la ñom ñep rek ñu ngi leen di jox cër bu mat sekk di leen bàyyiloo xel seen bop waye tam di leen bàyyiloo xel askan wi nga xamanteni ni ñoo leen doylo bo botu ci seen ginnaaw naam ñenn ñi tab nañu leen ñi ca dess ñi ngay xëccu waye and ak lu mëna xew rek wax day rafet wax day deggu waye tam wax day nekk lo xamanteni tam ëlëk bo ci engagé wo bu ñu taxawé ne ya waxon nangam nga sañ ne mako wax kat waye nak lama ca def nako la ca dess la koy sotal suñu borom la yalla ko borom sotal Euh, ci képp koo xamante ni am nga mébét ci réew mi ndax jamono bi ñu toll euh, réew mi toll na foo xamante ni wax dëgg yàlla soxla na taxawu dëgg di nuyu di ziar nag képp koo xamante ni yaa ngi ci réew mi di la ñaanal jàmm sutura ak xéewal ak teranga lay metti ci yow yaa ko xam yàlla na ko yàlla teggi muy xéewal te nga fekk lépp waaye itam teggil ko mbokk yi nga xamante ni jàpp nañu ne seen wërsëg nekkul Sénégal ma nga bitim réew moo xam réewu Afrique wala réew nit ku weex nañu yek ne rek ñom ñep gannaaw bañu leen nuyo ngeen gi nuyoo di alaykum ci bir seen ngeen gi télé di la 2STV ñu ngi am mbégte lool ak banex di delu ci wat di andak ak ñom di leen ñaanal jamm sutura ak teranga waye yalna na sam leen bañu ñu ci wat ci réew mi ndax li ñi am ci ay perdu de vue dafa tukki won dafa takkon ay bagage am dafa nangam sangamon yoy yep mënatuñ leen gis boobaak legi fukki at ak nangam japp ñaar fukki at wax deug yalla dafa nek lo xamantene neexul ci ben xolu jabot kon képp koo xamante ne rek yaa nga bitim réew toog di daan doole toog lu toll fukki at wala juróomi at wala ñaar fukki at te gisoo say mbokk la 2STV permettre na la téléphone yaa ngi fi nga woote danañ la defal ay recherche bitim réew laa nekkoon samay mbokk ñu ngi fi ma bàyyi te it bëgg naa leen a gis kon nañ ma ko seetal loolu te doo ci fay dara donc te liñ ci jublu du dara lu dul rek lëkkalewaat mbokk gi jokkoowaat mbokk gi te yàlla suñu borom moo ko wax ci boppam ak mbokk mom kuko ko jokk ku ne danaa la jokk way kuko ko dog danaa la dog kon yalla bu yalla dog genn mbokk go xamanteni nit ki dafa dem ci biti la ko njëtt nak moko xam sunu borom it moko xam waye sunu borom mi tenki tënk yalla yalla yàlla tenki tënk yep ba kenn ku ci nek nga meuna deggante wat ak sa mbokk. tay nak mardi comme ni ma leen koy defale sa suné xam ngeen ni émission bi man ak yeenay and euh may delu nak euh, di euh, bala may def dara rek xam ngeen ni am sœur. mu daggal la bii avion ne la ñëwal vacances Toulouse sama kër bu yaayam génnee àddina da ngay bàyyi lépp jàpp ko ndax euh, la mu la defal donc bu Sow nekk diwaanu Toulouse Mansour borom këram bàppul la moom mi nga xamante ni man xer laa ko tuddee ndax xer way téyel sàkket da cee dëgër ñu ngi leen di jaale bu baax a baax suñu yaay jooju nga xamante ni génn na àddina fii nga xamante ni moom mooy diwaanu Pikine ñuy ñaan nag yàlla na ko yàlla xare àjjana Seynabou ak ay sëram yépp ñoom maam den ñoom poron Kulim lim da ngay joom ku bok ci fami bi rek fami halpular bi yep ñu ngi la koy di ñaan mère bi fa mu teud yalla nako ko gënal fi mu bayiko en tout cas damay wax rek ne bu fekente ni taxaw moy tax nit ne fi jappalé fajj moy tax nit nek fi gëm na ni sëy bu ak ay ñoñam ak rakkam def nañ ko ci seen wayjur waye nak li la ci yalla nam te bu soxla jam da fay ñak donc ñu ngi jaale ñep di massaw ñep rawati na bu saw mom nga xamanteni moy cor Mansour ñu dégg nag euh, gis ngeen ko ni ki démb dugguñu ci lu jëm ci wàllu làmb ji nga xamante ni moom moo am nit ñëpp am ci lu leen naqari ndax farak nit ca nañu ko waxee ndax lañuy wax rek dañ ko teg suñu kanamu borom la leen jotale xamuñu ko yàlla suñu borom rek moo xam waaye far naag nit histoire naag nit dóor nañu ko ay xeer génn na àddina loolu dafa nekk loo xamante ni war nañ koo rombale sunum réew war nañ koo ëppale po moo xamante ni dañu jàpp ne powum cosaan la powum aada poola moo xamante ni mag ñaa ngi ko fi doon def démb te dara ñaawul tey jii bi ñu demee ba nekk mag formé ay kuréel nekk ci seen biir am na loo xamante ni bu fekkonte ni ñaawal nañu ko ca ba ñuy ndaw bu ñu demee ba nekk mag am na association yoo xamante ni duñ ko mën a taxawal kon ndaw ñi nañu delloo si waat seen xel surtout ñii nga xamante ni ñoom ñoo toll ci wàllu bëre bu ñu xool dimension bi ni mu tollu bu ñu xool xaalis bi nga xamante ni moo ci nekk ak événement yi nga xamante ni moom moo ciy am waaye nañ ci xool xam ne luy jàll la te olof Njaay dafay faral di wax ne nit ki fu mu toll sa jikko sa ginnaaw lañu koy wax ku ko mën a dégg ne ay la yéwén mën naa ne xam naa ña organisé woon loolu jubluwuñ ca loolu ña nekkoon ca biir làmb ji itam di bëri jubluwuñ ca loolu mais ñàkk sago ak ñàkk ak dal gi nga xamante ni moo am ci xale yi xëy na léeg moom mooy indi li ñuy bañ ñu di ko wax ne làmb ji amul violence te violence defe naa ni mënta weesu mër doom kon yàlla nañu yàlla tàggatal ndaw ñi dalal leen te yu mel nii ñu xam ni kenn ku ci nekk boo ñàkkee ka nga faral dana ñëw jaale si la moo xam mu lem un million jox la waaye nag dafay doon loo xamante ni dootul weccee bakkenu doom aadama donte fu ko yàlla na mu fa la koy jële waaye nag nanu sabablu ba mu bañ a jaar ci suñuy loxo ndax jaam lu mu sabablu rek yàlla mën na ko caa fekk donc ñu ngi jaale mbokk moomu nga xamante ni dafa génn àddina ci ginnaaw làmb ji nga xamante ni moo doxoon diggante Ama Balde ak ki nga xamante ni mooy Malick Niang bu yoof ñu delloo siwaat xel yi bu baax a baax te xam ni réew mi romb nañu foofu Euh, tey nag euh, ñu dellu si waat euh, ci seen émission comme nii nga xamante ni rek noonu lañ ko doon defee ndax bu ngeen xoolee am na benn semaine boo xamante ni dama def benn émission ci benn soxna soo xamante ni mi ngi réeroon fi nga xamante ni moom mooy France ay mbokkam nag ba suñu jonn yàlla tey dañ may wax ne ma doyaluñ ci annonce bi ndax am na ci ñoo xamante ni ñu ngi tàmbali di leen déy ne xam nañu fi ndaw fi si nekk am na ci ñoo xamante ni tàmbalee gu ñu pour wax ne ndaw si lii lay dund waaye nag ci kaw ñime googu moom la ñu bëgg yéen ñëpp ngeen àndandoo ceeg ñun euh, ci vingt 88 628 69 69 wala 00 221 33 841 09 31 kenn ku ci nekk rek du numéro bu ñuy lijjanti du numéro bu ñuy xool mais nga jéem ñu ci jox ay tegtal ndax bakkanu doom aadama dafa foor surtout nag nga nekk nit koo xamante ne yow ak moom ak sa yaay ñoo bokk ndey ak baay mu réer lu tolloog kenn xamul ñaata at la boroom këram mi ngi ñëw ci dëkk bi. génn na waajuram kër ga ma ngay luwee kër ga can nañu ko waxee yooyu yëpp bëgg nañ ci am lu ñu leer parce que xam naa ne borom kër bi am na fulla ju toll ni bu fekkente ne am na benn attaque bu ñu def ci moom war naa mën a riposter jaar ci ligne bi waram woo ñu téléphone wax ñu nan la ko sentiré waaye itam dafa nekk loo xamante ni itam euh, bu fekkente ne noppi na rek noppi moom leeralul dara te tuumaa lu ñu kenn bëgg nañu am ñaari version yi jéem nañu gëstu itam numéro mais le fait que ay mbokki jabaram munuñoo am numéro mënuñoo xam fu mu nekk sàkkaatuma ak soxna Mbaye mi nga xamante ni dafay toog euh, ci émission bi kon am numéro am dafay doon loo xamante ni daf koy jafe donc waxtaan lay doon ñun ak moom diaspora bi metti na la nit ñi dund metti na nit ñaa ngi réer nit ñaa ngi dem la ko sabab lan la li ñuy def mooy rek du sori dañ leen di delloo si waatal élément bi parce que benn yoon lañ ko jàllale te xam ngeen chaque fois dañuy am semaine boo xamante ni dañuy jàllale élément ba yàlla may ñu ci ndam yàlla nañu ko yàlla mayaat nag ci nim ñu ko maye woon ci yeneen ak yeneen ak yeneen yoo xam ni incha allah anniversaire u 2STV tombeeg le 21 juin ndax jamono bii ñuy def anniversaire émission kër gi mi ñu fekk ci wéradi ba yenn démarches yi mënuñu ko waaye nag ñu kale ko comme anniversaire anniversaire rek la le 21 juin ci kattanu borom bi yàlla nañu yàlla mayaat wér ba ñu mën a ñëw teew defal leen zapping ci li nga xamante ni def nañ ko ci at mi dafa mel ni mbokk dafa nekk ci ligne bi li ñuy def rek mooy dañu koy daal di jël asalaamaaleykum maaleykum salaam waaw soxna si maa lay nuyu di la ziar. Seye yaa ngi ci jàmm. alhamdulilah tur la ak fooy woote. Fatma Thiam. Babel Demba ak na newaas ku woon ni rey borom wala caam Demba ak Bokar. Thiam Dogo. ah Dogo mi ci Mbergoor. ndeysaan foofu neex na. Thiam Dogo ñu koy nuyu bu baax a baax a baax Dogo mi ci Mbergoor di nuyu bépp Thiam Dogo. Ah, rawatina ñu ngi koy nuy bu baax a baax moom tamit eh, borom eh, Dogo Kor Dogo. di ci nuyu Mati cham Dogo ñom ñëpp dal fami Dogo yep ñu ngi leen di nuyu ba ak bokkar ye ñi nga xamanteni ño bok ci tukulor ye ñom ñëpp ma ngi leen di jox cër waye nak kenn ku nek xamna ni bo laaje Tafa Thiam ma ci ba di nga xamni ni mi ci jigen Babel mi ci ndem jogu dikke ak borom guuy teug bobu itam benn gënu ko neex donc ñom ñëpp ñu ngi leen di nuyu li ñi def moy rek euh, nañu dem régi euh, su fekkente ni élément bi yemb na euh, ñu sétane ko ci wat ubil leen téléphone yi lan ngeen ko ci xelal ak limu dundu waye tam eh, photo ndaw si tam mujjé nañu ko am pour ñi nga xamanteni xam nañ ko ñu war ko mëna a ràññee xam ni ndaw si mom lañu sét bien que nak photo bi yag na ndax ku dem plus de 25 ans japp 30 ans war nga xam ni photo bi ngi fi bayyi won photo bi war naa yàgg waaye nag doomu du rër du rër té nit ki ku ko né jak xol xam turam xam santam xam turu njabotam war nga xam ni photo bi lu mu magget magget mom la kon ñu dem régie rek andando ak ñom dektel len sen élément dellusi si ubbil leen téléphone yi. maaleykum mbokk yi dama amoon problème sama tànt bi bokk ak sama yaay ndey ak baay daf ñoo réeru lu ëpp fanweeri at ak juróom kenn xamul ci li mu nekk moom ak njabootam maa ngi doon ñaan nag ku ko gis di góor di jigéen di mag di ndaw rawatina nag. ña nekk ca France nga xam ne fa la nekk aw jóob lu tudd dafa sëyi woon borom mm-hmm. këram moo ko ñëw jël fii ñu mm-hmm. may ko ko mu yóbbu ko booba mm-hmm. amagul doom ba mu demee nag fa la ay doomam juddoo taaw bi mu ngi tudd Ndey Mariam Jóob ki ci topp sama yaay la ko tuddee mi ngi tudd Assu Jóob ki ci topp euh, magam bu góor la ko tuddee bu gaañu woon mu ngi todd Ibrahima Jóob jëkkëram mu ngi ñëw guddeeg bëccëg waaye duñ ko gis du ñëw ci ñun du wax ak ñun du ñu bind du ñu xool dañuy dégg rek ne ñëwoon na fi. Mhm. bu ñu dégg ne delluwaat na bu yàggul sax dégg naa ne ñëwoon na ba caaroy. Mhm. waaye agsiwuñ fi ma dëkk. Mhm. xamuñ ci moom dara ndax li tax eh, gisatuñ ko. dañoo toog benn bis rek. mu ñëw boobu sa maam bu jigéen mi ngi dund. bi mu nuyoo sa maam ne ko agsil. mu ne ko déedéet agsi wu ma de sa maam ne ko lu xew xanaa jógewuloo France mu ne ko ñëw naa bu yàgg. waaye hôtel laa dal. muy gorom muy gorom waaw. mu ne ko hôtel laa dal. mun ah lu xew te keur gi ne yàmbalang bobu ñi ngi tabax keur gi mhm. boobu maag sam mam rek ñoo nekk ci keur ga mhm. mu ne hotel la dal ñewuma fi de mu ne ko kay tok mu ne ko dede toguma mhm. lima indi won moy sa dom momu yoni neena nga genn keur gi sa mam ne ko ah genn keur gi ci kaw lan ndax keur gi mom ci bayam la ko donne won te man ma ngi don seuy ak baayam ba legi musuma fe def lu ñaaw musuma fe wax lu ñaaw mu ne ko lool yëpp neen dal nga jox ko keuy di te nga genn keur gi ba no sa maam bañ mu dem ci yoon moom jëkkër ji mhm. yóbbu ko ci yoon mhm. bañ demee ñu àttaleen xam naa dafa am na fu mu jaar mhm. ñooñu ne sa maam comme noonu la demee daal génnal kër gi léegi mu génn sama yaay nag jël ko indi ko këram moom yor comme man nag man mii la yoroon man booba fekk damay jàng sax mais damaa mujj dagg sama jàng sëy ndax mun ko yor ndax moom dang moo nekkoon naqar boobu bis bu ne muy jooy dinaa jooy dinaa dee rek te du gis sama doom ji ay ma tàqaleeg sama sama doom ji lu nekk mu di ko wax. naqar mm. woowu gannaaw yàlla moo ko rey. yaay ji encore génn na àddina. génn na àddina léegi ana kër gi. kër ga kenn xamul ku ko yor. kër mm. gaa ngi fee mu nekk. kenn dëkk ci kenn dëkk ay luyaasaf dëkk ay locataire ñoo fa nekk. Mm-hmm. ku dëkk bay jeexal rek dem sa yoon keneen dëkk ñun xamatuñ ci dara ci kër gi mais naka la def ba jot ci kayitu kër gi. Ah, bi mu ñëwee lañ ko ko jox yoon moo tax ñu jox ko ko. jëkkër ji góor a jóob la tudd. Mm-hmm. moom sax. mën naa wax ne français la daal. ci li ma mën a wax. Mhm. ñoo bokk nag sama mbokk la moom. Mhm. mais presque bi ñuy dem France boobu xale bu tuuti la. dañuy dégg des fois ñu naan daf ko tëj dafa bon buggul ay mbokk mbokk yu bari koo ne dem fa sax mu ne duma fa dem parce que ku góor ki baaxul. doo fa dem seetal ma ko mu ne foofu duma dem foofu xaw ma nag lan la loolu dañuy dégg naan daf ko tëj ak nanguwul mu dem fenn ak nanguwul mu dem ci benn mbokkam ñun fi mu ne famille amuñu kenn. ñooñ lañu am te xamuñu leen ñoom xamuñu maa ngi ñaan nag waa France képp ku ko gis ku gis Awa Diop ak doomam Ndeye Marème Diop dama ko wool man mii moo ma yar man doomam Ndeye Coy maa koy seet d'accord loolu laay ñaan looy ñaan jëkkër ji itam jëkkër ji tamit maa ngi koy ñaan moom góor bu fekkee ne yow yaa téye sama tànt bàyyi ko mu ñëw ci ñun sa maam jooy na ba dee nañu dimbali ngir yàlla fu mu nekk ne ko mu ñëw nañu woo sax buñ ko gisul sax nañu woo ñu ñu dégg kàddoom rek moom rek laay ñaan yàlla ndax dafa yàgg fanweeri at ak juróom kenn gisu ko xamuñu ko amuñu kenn sama yaay ku mu waxal mu ne ko amoon mbokk amoon dara amuñu dara ndax moom rek lañu am ak njabootam loolu rek laa ko ñaan fu mu nekk ay tànte yaa ma yar foo nekk rek nga woo ma man day cooy maa lay seet bëgg laa gis jërëjëf tante Awa job man day coy maa lay seet kor gor gi job eh, amna dom jo xamanteni xamante ni eh, ñaari dom yu gor la ak ku jigen ñom ñep waxna sen tour ci bir element bi tante yama yar maa ngi lay set ndax suma sañon gis la waxuma sax nga ñew ci ñun waye telephone rek woñu ñu xamni ñu ngi dund ñu xamni yaangi ci jamm suko defé jamm joji yalla mën lawal ndax joy yi nga xamanteni moom la yaayu soxna sii doon jooy ba génn àddina tey moom nday cooy moom la yaayam di jooy ndax bu sañoon gis magam ji nga xamante ni moom ak moom ñoo bokk ndey ak baay ñu nekk ñaar rekk ci àddina nekk ñaar rekk ci àddina nag dafa metti bari nañu koy dund souvent dama koy faral di wax euh, Pape Moussa Dieng ni yaay ak xujja ñaar rekk lañ ci àddina waaye tey bu ñu toogoon ba kenn réer ci loo xam ci lu mu nekk dafay daal di metti ci sa xol kenn ku ci nekk kon niko ko olof ndjay di waxe rek ku sa yap bop reer dang kang. koy lamb ci sam kang lan moy waral yu mel euh defe naa élément bi biñ koy jekke jallale bobu amagu len won photo bi waye tay indil lañ len photo bi pour lan nit ñi xamé kan la France réew la te fo ci dem sénégalais ya nga fa xeyna tit kay fa nek ak ñak baña wax ak suma waxe lan la may jural ndax dina feñ wala duma feñ wallahi azim kenn du ci feñ waye nak nañu fexé ba xam fu mu nek xam fu mu situé bu ne adina ñu nangu ko dogal suñu borom te xamni suñu borom mom mo dogal lool ci mom waaye gannaaw yalla dogal na mi ngi dundandi xëy na yàlla nako def ba mu wat ak ay mbokam kon fay jaadu ñu jéma xam fu mu nekk nak li problème mu kër di indi li problème mu yas di indi li problème alalu aduna di indi nañu ko sétat bis bu sét dañ ci wax te kër yaangi toj kër yaangi boy te dara waralu ko nak lu alalu aduna dafa yéeme kenn ngi ci ligne bi dañ koy jël tey mardi yéen a ko moom seen téléphone rek lay doon allo. allo waaw asalaamaaleykum. maaleykum salaam. soxna si na nga def. waa doom boy na def. maa ngi sant yàlla bu baax. man mi mba mbaa France ngay oote. non non fii laa woote yëmbal. yëmbal. waaw maa ngi nuyu waa yëmbal yëpp. yaa ngi ci jàmm. te di la yóbbante nuyoo ci Fatou Laobé. ah dëgg la <laughs> sama xarit maa ngi sant yàlla baax alhamdulilah ma maa la raw bu baax a baax chéri allo ndeysaan yëmbal géejewaay parcelle amoo ñoom ñëpp maa ngi leen di nuyu di kontaan ci ñoom princesse Ramatoulaye Guissé madame Aïdara Karara yow koo ñaanal mu nangu maa ngi leen nuyu bu baax di kontaan ci yow di kontaan ci képp koo xamante ni yaa ngi ci zone boobu di ñu seetaan jamono bii yépp li ñuy wax ci wàllu kër la wàllu ndono nawtal nañu sama yaay ndax kër def nañu nangam ak nangam ndax kër eh, alalu aduna jaral ñuko des fois eh, dañuy faral di wax jël jel yi jël ko ci walu wujé walu surga walu jëkër walu nangam mais amna problème yo xamanteni ni gëna sensible ci biir kër té mu doon lo xamanteni ni lu metti la comme ka yu démé ni ndax ngay xol nday gi nga xamanteni ni la jur ci fardas yalla ak sunnas Muhammad jur la yak kenen rek ngeen nek muy yar di nek di libli ba yalla indi borom kër xam nga doomu aadama moom boo euh, boo joree sa doom muy jigéen góor sax sa yoon dangal tëggal mbooye ngaan rek lu la indil nga waxtaan ak moom ah mbaa fa nga dugg baax na mbaa ki nga indi dina ànd ak man mbaa dina ma dalal dina ma nangam xale yi de léegi saytuñu nàngam sàngam loolu góor gu ne boo am boo nekk ak sa waajur da nga koy dégg euh, mu di la ko wax waaye bu dee jigéen la góor ñëw ne sëpp taxaw la macha allah dañuy wax ne nit ñi dañuy jaay seen doom ndax alal. dedet man d'accord na d'une part d'accorduma d'une part ndax amna na ci ño xamanteni ñom bo xasse bané salam alaykum duñu xol saw xet duñu xol fo bok duñu xol ñu lu la dal duñu xol dara lan lañuy xol sax ba nga xamanteni mom nga indi ñu jël la ah, la jëkëri jëkënte la daal di jël lay jël may té dama daan faral di dégg sam papa di wax né ku jël sa bop ruur ko ci xatax mbam ngër ko waye lu way fexé ci ñak ba rek nga yaakaar ni jëkëra ngi di nga dugg ci lo xamanteni ëlëk di nga wét joy lu mu wax lolu Babel Demba dinaa ci ñëw bu ma ñëwee ci kii ba noppi alo allo. allo waaw. waaw. waaw doom booy. sant yàlla. man maa la gën a bëgg. bëgg naa maa la raw fooy woote ah. fooy yaa ngi woote Touba. Wah. an sa mama mi fi mi tok diñu di ñu Man nga mako jox mu wax ma xalaatam ci li ñu indi tay. ak lan lamay ñaanal góor job? jóob Man nga mako jox ma wax ak mom téléphone waa Wa jox mako? Wa jox la jox ma sa yaay ma waxtaan ak mom. yow sama xarit nga allo allo yaay jambo? voilà ñu ngi koy jéglu bu baax a baax waa baax yëpp maa ngi leen di nuyu su ma limee damay juum di leen bàyyi xel bu baax a baax di kontaan ci ñoom euh, di kontaan ci képp koo xamante ni yaa nga fa toog jàkkaarloog ñun di ñu seetaan ni ma leen ko waxee rek euh, la bàyyi waxoon ne euh, lu faxee ci ñag bi rek nga ne jëkkër a ngi di nga jël sa loxo dóor ko ci ëkk waxuñu nag ci ne alal waxu ko ci diine waxu ko ci lenn waaye jëkkër dañu koy seet ci anam yi nga xamante ni moom la ko yàlla waxee bi nak dafa nek ka bo xamanteni xeyna na dinañ ci duggal lolu waye nak li ci ep solo moy dafa nek ay mbokk soxna si joblasant, la sante jeuker ji nyobok job la tudd ñom ñu bokk seen ben famille bo xamanteni bu jégué la kon lañ doon wax ci sëyu famille né nañu sëy sëyu famille ndax dafa nek lo xamanteni lu ci nek menes na lijeenti ci bir des fois mu indi problème yu Nak ndax sëy bo xamni ne famille la nga tok fanweeri at ak juróom gisoko tak ci yow ah léeg jàmbur dina ko daq de lool sax ba kelkel yi allo. allo asalaamaaleykum. maa ngi sant yàlla baax soxna si tey ziar. Ah, mhm, soxna si tur bi naka la fooy wootee. tur bi lebal naa la ko fan ngay wootee. maa ngi wootee Géejawaay. ay ceeb rek la ñuy déglu chéri. waaw maa euh, euh, gone boobu portéro Ama Baldé bi. ndeysaan. franchement parler. Mhm. metti laa ci jëlee. ndeysaan massa. wallaahi azim. massa massa. wallaahi. ndeysaan yàlla mottalee ndawam àllaaxira. allahumma ku gis photom démb rek sa xol jeex na. barke sëñ Touba. wallaahi suba ci laa ko gis jeex la seen xol jeex. parce que mort violente dafa metti wallaahi azim. dóor ay mol dom adama ba sedd dafa eh, metti. li li ay nit a def am ay jinnem ay rap ndeysaan. li ma ne xaw lu may nuru billahi alazim ah kon xeyna na nañ ko delo li ñu wax rek lu jog ñu tek ko dogal borom. wa rek rek sax. Ah, ah, mm. saa rek saa su sa rek saa sa mat. Mm-hmm. ay mbokam dal yalla na leen yàlla may xol bu ñu muñal. allahumma amin may ñu ko ñun ñi mu metti te juruñu ko ñu sax ku mu ne. ay dem yeb ben lañu. akay metti te tis nak ay mbokam yalla na eh. yalla may xol muñu allahumma amin amin ndeysaan ndeysaan di ñaanal tamit borom seen bi mhm. yàlla niital ko kooku dem yàgg na lool tamit lool man nu nit di dundee réer am yu day noonu man fi ne loolu moo a jaar fanweer ak juróom ah ëpp na de ah yàlla fekk mu ngi dund rek wallahi wallahi yàlla mën na ko ni ni nga ko daan defee muy leer yàlla na ko yàlla leerala yàlla na la yàlla dégg waaye ci barki laa ilaha illallah yow tam yàlla leer say mbir ndeysaan amin amin ku baax nga tout ça ñoo ngi lay jërëjëf waaw ñoo ngi lay ñaanal nag. ngi leen di ñaanal bu baax yéen waa Géejawaay yëpp. wallaay xam nga naan mbay neex nga ma saf nga ma dafa yàgg sax jeex na ba ah, pare. man man man aw ma noonu. wax ak kooku. <laughs> aw ma noonu maay Fatou Guewel. jërëjëf waay <laughs> merci mooy sama grande sœur te nee na moom amul noonu ñëpp ko bëgg. man aw ma noonu ñëpp ma bëgg géwal man tamit aw ma noonu ñëpp ma bëgg maa ngi lay nuyu bu baax a baax di la ziar di ziar sunu borom kër googu mbay daan yi di leen ñaanal rek yàlla leen yàlla bàyyi ngeen sokorloo ni asamaan ak suuf buntu baa ngi noonu ngeen mën a wéy di ci jaar mu doon loo xamante ni lu doy waar la lu yéeme la lu metti la te it nag lu tiis la loo xamante ni wax dëgg yàlla kenn ku ci nekk boo ko nattee ci sa bopp rek da ngay xam ni metti na daf ma woo man maa doon seet sama tante maa doon seet sama tante benn yoon rek nga ko jàllale dimbali ma jàllale ko dimbali ma dimbali ma ba finalement mënatuma def leneen lu dul jàllaleel ko ko ndax benn fan lañ ko jàllale si je ne me yàlla indi ma def benn standby loolu moo tax ma dellu si waat ci thème bi génne waatal ko foto yi te xam naa ni ñàkkul ne ñi nga xamante ni ñoo nekk France ñu ngi toog di ñu seetaan jéem nañ leen laaj ban adresse la ci France mënuñu ko xam jëm nañ leen laaj ban zone lañ leen waxon wala ban province ñu ne xamuñ ci dara ñun daal li ñu xam moy jëkkëram ñëw na jël si nako fi yobbu ko parce que mbokam la amna droit yobbu ko ndax ko xamanteni li olof ndjay di wax wara tak wara sey wara ramé ne fanak tok fi ku fi fase na la bàjjen ko euh, ku fi juddu na la bàjjen ko fase mu dog loolu moo nekk ci bir sey bi kon lolu mo taxone ñu rafet njort ba jël sen dom denk ko ñu jël mbokk mom ci ligne bi allo. allo oui. alaykum waaleykum salaam tante Mbaye. waa doom booy. na nga sant yàlla bu baax sonn rek te tàng. nam naa ndeysaan su ma la waxee su ma la waxee sama tur lépp mooy xam waaye waaw waalo ma sax waaw waalo. ndeysaan waalo mbooj. waaw waaw waaw nag soxla woon naa sa numéro. na kay. waaw thème bi nag thème bi nag thème bi moom maa ngi rafetlu waaye nag lamb ji moom dafa lamb ji dafa ñaaw ba pare amul lu ci rafet nañ ko xam nga Sénégal duñu la dëgg eh, lamb daa ñaaw ba pare. léegi nag léegi nag benn affaire dafa am. Wow, suma ma duggee ci domaine lamb ji di ci wax. waaw Bécaye mbay fii la may fekk dóor ma. waaye ñoom ñoo la gën ñoo xoolal. promoteur yi dóor ma léegi taxaw ma expliqué la rek. waaw xam nga ñun émission bu am rek tiis am dañ ci àndandoo jaale. Wow, waaw. waaw xam naa du ñàkk Bécaye dina leen ubbil benn page boo xam ni wala Facebook bi ngeen joxe ci seen i commentaire. waaw su ko defee rek ngeen jàppale ma lool rek ngir jëmi Seydina Mohamed. waaw léegi nañ jóge foofu ndaw si ndaw si Europe. waaw waaw réer seen mbokk moom daa metti lol, lol, lol. lool dëgg la dëgg la dëgg la réer say mbokk daa metti lool lool maa ngi nuyu waa waalo yëpp madame ma nga fa maa koy nuyu di ko ziar euh, di ziar kii waa mauritani yëpp ñoom umu Diop ñoom marem ñoom Michel bu Maguette Naar madame Kan Hamidou Ba bu PA Guèye waaye du ma fàtte ki nga xamante ni moom mooy Serigne Dia euh, nekk marchand ambulant ak marchand ambulant yi ca marché ba yëpp ñoom ñëpp maa ngi leen di nuyu di kontaan ci ñoom euh, di leen ñaanal rek jàmm ak dal gu sax dàkk

dëgg la man nag euh, émission bi. merci beaucoup. man maa ngi mës ci radio ak ci télé. Mhm. Wa mais nak euh, ndaw laa mais kuy déglu émission la Yalla na la Yalla def ngay mag mu am 111 onze ans sans ordonnance. amiin jërëjëf. ndeysaan. mais dama dama dama damay yem ci manam ci luma gi ci émission bi ku disparaître la parce que gis naa mbokkam di wax. Mhm. loolu nit mënu ko yëg sank dund ko. ndeysaan. vingt trois ans ngi gisuma sama yaay bi ma jur. bàyyi li ngay wax. waaw nit nag dee na nga suul ko dafa neex. Mm-hmm. nga wàcc. Mm-hmm. mais ngay dund chaque jour xamoo nit ki dee na wala deew wala ngay am joxtu ko ni deewul. c'est choquant loolu doon nelaw. waaw. léegi nag damay bañ nga coupé. dëgg sa yaay fan la dëkk. dina fii la dëkk Dakar fii. léegi nag xam nga nooy def. Mm-hmm. pour plus de discrétion. Mhm. bayil ma sa numéro ci suuf. d'accord ou bien ñu jox ma sa bos. d'accord dina ko wër ci kàttanu yàlla bu fekkee mi ngi dund. Mhm. ba ko ci loxo. dëgg la yow ñaataat nga am. man am 33 ans léegi. 33 ans. waaw te muso gis sa yaay. gis naa ko benn yoon moo tax bëgg naa bàyyi sama numéro loolu ñu yaatal ko. day yaatu. bala ligne bee dagg s'il vous plaît waaw Tafa Sow jëlalal ma numéro mu nga joxal mako sama bos personnel. voilà buñu ñu tisbar ba paré mu woma yalla nañ ci yalla mayat ay ndam gis ngeen euh, bëggon na sax man wa kay mi ngi feeñ gis nga sama caisse décor yi li fi nekk ci photo yi ñu rër kenn xamul nu mu tollu taxaw ko di talal sax légui daf may jafé gisuma sama yaay gisuma diw am na soxna soo xamante ni amoon na doom bu sant jàll mi ngi ko yóbbu woon Koungheul muy jàng arab booba 5 ans la am xale bi am na 25 ans ci àll bala la yaroo mënatul a génn Koungheul te yaayam mi ngi fii ci diggante Kër Njaayloo Njaxiraat bi envoyé woon na ma message bi incha allah dinaa ci jéem a taxaw lancé ko su ko defee mu gisante ak ndeyam mais jur ni mu méttee ëmb ni mu méttee nga yor sa doom. même bu ko bàyyam ku ñetee yóbbu daara ne la day jàngi seen normal parce que diine la waaye doom dañ koy nemmeeku parce que kii li mu wax nit ki li mu dundul mënu koo xam yàlla nañ ci yàlla musal yàlla nañ yàlla tàggat ba ñuy uuf doom yi mais euh, jëkkër yi itam góor a jóoba jubba waxal sa jabar mu wax ak ay mbokkam waaye téléphone c'est facile li ñuy def mooy rek 88 la 628 69 69 00 221 33 841 ñaari numéro yi nga xamante ni moom la ak yéen waaye kenn ngi ci ñuy dugal clip. ok ñu jël ko ba noppi. mon grand maa ngi lay nuyu la ziar. asalaamaaleykum. waaleykum salaam. ça va bien. sant yàlla alhamdulilah. Euh, bon comme sama olof bi leerul noonu. Mhm. ak Ali Bathily depuis en France. yow yow Ali Bathily.

tout seul quoi si c'est si c'est pas elle. Mhm. entre France et Dakar c'est pas trop loin. mon année donc euh, mais pour faciliter donc comme euh, son mari c'est pas longtemps il vient au Sénégal. de temps à autre. Voilà, euh, il n'a qu'à faire tout pour voir son, photo, pour afficher comme ça, on peut le comprendre. quoi. Voilà, mais sinon, la femme de sur photo, les photos qui vous affichez, c'est trop. Ça fait longtemps, quoi, donc on peut pas le Plus que longtemps, plus que longtemps. Ça a fait plus de 30 ans. Donc, c'est pour cela, bon, il y a comme ce que vous avez expliqué tout à l'heure. Il sera difficile de la reconnaître. Mhm. On peut être même, même bâtiment, donc on ne se connaît pas tant qu'on ne parle pas en l'offre. Ah, surtout. Comme, comme 82% ils parlent en français, donc mhm. voilà, donc euh, si vous ne discutez pas, vous ne pouvez pas comprendre. Ouais, moi je suis sénégalais, non, moi je ne suis pas sénégalais. Oui. Mais si vous affichez son photo, peut-être on peut dire, ouais, les mecs là, j'ai... Le photo du mari. Là-bas, là-bas, voilà, comme ça on comprend quoi. On va, on va essayer de l'avoir, Inch'Allah. Voilà, donc comme c'est pas le je vais, je, je vais contacter la famille. tout est possible quand même, mais ce qu'il a fait, franchement, c'est trop, trop, trop grave. Oui. Il faut qu'on fasse tout pour effacer ça, donc euh, c'est incroyable, c'est immenable quand même. Il faut qu'on efface la photo. Ah, voilà, comme ça on peut les voir. Ben, par exemple, si moi je vais son euh, sur photo, moi je bon, je les vu une fois, je peux dire ah ouais, les mecs là, je les ai jamais vus euh, là-bas ou bien je les ai jamais euh, euh croisés avec lui là-bas, donc c'est possible quoi. Il faut qu'on efface la photo de la femme ou bien la photo du mari. Non, non, son, son mari. Son mari. il vient de Sénégal, donc son image, tout c'est bien, donc par rapport aux photos que vous affichez, donc. D'accord, on, va faire de notre mieux. Hein. On va faire de notre mieux. En tout cas, moi, voilà, donc moi, c'est ça que je voulais, donc, par rapport à euh, euh, sa femme, donc, parce que vous savez pas que l'eau qu'il habite, là où il est, donc, donc son, hein. son, mari, tout le temps, il passe au Sénégal. Mm-hmm. Il n'a qu'à faire tout pour, toi, pour euh, récupérer pour toi. Mais c'est facile. moi, je vois que la situation est facile à gérer. Mm-hmm. Dans la mesure où tu as, la, tu as ta femme en France, mm-hmm. sa femme, il la recherche, appelle ta, appelle ta famille par téléphone, mais c'est facile à gérer. On ne t'a pas demandé de la faire revenir. Oui, mais, voilà, donc c'est pour ça que c'est elle-même qui l'a disparu. Mais bah, moi, je moi, je suis là, donc euh, si je voulais disparaître, je dois arrêter entre, comment, dire ça, je peux arrêter les appels entre moi et ma famille. Donc euh, ça n'est dépend de moi-même. Donc euh, Voilà. En tout cas, pour moi, euh, la disparition, c'est quoi C'est la, femme même qui, l'a fait, là. D'accord, c'est elle. C'est donc... c'est elle qui veut disparaître. Euh, Merci beaucoup, monsieur. Nous vous remercions de votre participation. Merci beaucoup, madame. Et bien des choses à tout le monde. je suis très content. Merci, c'est gentil. <laughs> C'est gentil, c'est votre télévision. Et on vraiment, bien. Merci beaucoup, nous vous remercions. Okay, merci beaucoup waa France ñoom ñëpp ñu ngi leen di nuyu xam naa ni moom ku mel ni Mamadou Sy taalibe Cheikh ma nga ci archive ya ma ngay dawal bët ba bii kanam kañ la ko mës sa gis ak nu mu koy gisee ndax ci yooyu rek lay dox ki nga xamante ni mooy sama góor nag euh, bàccitin moom tamit maa ngi koy nuyu bu baax di ko ziar di ziar ki nga xamante ni mooy yaay mbàcc seen yaayam nekk fii ci dakaar di bàyyi xel bu baax a baax bekkaay seen moom tamit ma nga Italie ak soxnaam ñooñu ci famille bi la ñu bokk nekk ci xol bee gën nekk ci xef yi te yéen a ngi ci biir xol bi saa su ne donc maa ngi leen di nuyu di la ziar euh, lu doy waar la indi waa ji war nañ ko mën a indi mais techniquement wala professionnellement comme dañu koy laaj di ko forcer est-ce que bu ñu indee photom teg ko fii ci télé bi ndax du am attaque bu jógee ci moom ñëw ci ñun donc dafa am ñoo xamante ni il faut ñu waxtaan ñoom ba noppi lan moo ciy sunu rôle ci wàllu photo boobu ci waa ji ñuy seet ba noppi soog mën a génne photom su fekkente ni yoon ak droit parce que kër gi dafa am nu muy doxee am ay avocat am ñu ñuy saytu ci wàllu droit donc dinañ ci waxtaan ak ñoom ba xam ndax war nañoo mën a génne photo waa ji waaw wala déet disparition bi ndaw si moo ko bëgg mun naa nekk dañuy wax li fi nekk rek mun na nekk thèse bu ne la lan la ñu def waa ji ba tax mu mer kidnappé ki nga xamante ni moom mooy cousinam c'est des questions dañ ko poser souvent parce que jël côté bi rek ko mais euh, lan xadi euh, sunu théâtre kat boobu nekkoon daaray ko ci ñu ñaanal saa ak fan mu taxaw ne jak la racine du mal il faut la chercher ailleurs affaire bi da fay gëna xoot parce que machallah li motax ñu tamu xelu ñi nga xamanteni ñom ñoy euh, dugg ci émission kër gi donc li ñuy def rek moy dañuy daldi di marqué benn pause musicale tuuti rek sétane ben clip bu féké kenn nekkul ci ligne bi delu dellu siwaat ubbi laatal leen téléphone bi suko ko rek ñu daldi andando àndandoo waxtaan jéem a naka la ñuy def ba trouver solution ci ki nga xamanteni mom moy mooy Oumou Diop te nekk France bobak légui ça fait 35 ans Quand nous dem cette clip jërëjëf euh, koku di soxna Ndey Diouf sang la euh, ndeysaan euh, borom keuru Fatou gay ba don nako wax ku gis sab sang na nga jaamu lu ko nga rawle joy sap sang nag araamul dëkkee ko di moy yalla kon ñu ngi sargal sang yëpp kenn ku ci nek nga am sa sang ci sawet rek ñu ngi la ci sargal di la ci nuyu bu baax baax di la ci ziar waye di contane ci and bi nga xamanteni yang koy and ak ñun Ndey Diouf bu serigne fallou di sunu xarit di sunu lepp nak ñu koy ñaanal bu baaxa baax moko borom kërëm bobu yalla nañu sokkorloo ni asaman ak suuf njabot gi yalla na barkel buntu baangi nonu ngeen mëna a di ci jaar ñu jëm ci li nga xamantene rek moy soxna si way mi mi muy muy tantam bokk ak yaayam nday ak bay waxna naa leen ko sank tes bu nek mëna nek rër mëna nek disparition mom ci bopam itam mëna nek ndax ko xamanteni ba ngay sey yewu nga lijeentil nañ la visa lijeentil la nak passeport lijeentil la sey kayit nga defar sa mariage jur doom jurati doom jurati doom ba doom yee sax dugg nañu néegu sëy am na ci loo xamante ni xëy na léeg yaa koy xeex ak sa bopp te nag damay faral di wax ne def-def kaa ñu ko dot nañu ko sunguftu nañu ko rentu bu mu waxati bu mu waxateeg ay mbokkam ba buuf tawal ba muy dugg biir suuf amul fen ndax lu ci nekk rek yàlla wutal na ko ab boo xamante ni ci lay jeexee te dana ko toj bu soobee yàlla ak yonent bi ngeen wat ci seen jàmm kon boo ma ne fanweeri juróom gisuñu ma. ñaar fukki at xeyna peut-être wala ñaar fukki at yu manké yañ la ko doon may nga dem boba ak légui xeyna peut-être ben yoon nga ñew vacances say mbokk déggatuñu la su dee sa lew gi bakken day war nañu mëna japp né war nga réagir waye nak ana wéré di itam ana examen yoy ñuy wax te France metti na metti go xamanteni bo fa duggé bo amul kula dar mbokk ngi ci ligne bi ñu jël ko allo. allo salaamaaleykum. alaykum wa alaykum assalam sant yalla te ziar mbokk. man léegi ci laa bëgg jot. Ah. Euh, Mbayang. waxuma la jot Mbayang waaye àddina gépp ngi lay dégg. ah waaw. <laughs> Euh, léegi euh, maam émission bi rek. yaa ngi en direct. ah maa ngi en direct rek ci dolli. àdduna gépp a ngi lay dégg. Hmm, waaw léegi Tumbi dama ko leb moom. lebal naa la ko mbaa waaye mbaa mbaa la Njaay Doos di wax rek mbaa doo wax luñ lay xeebee. non no non non man Louga maa ngi dëkk Louga laa dëkk. yéen samay fans yi yéen mosu leen wax lu ñu leen di xeebee def leen lu leen neex. <laughs> ay ci yow rek li ñu déglu. ah maanaam kooku ñuy wax Gora Diop moomu. waaw. sama nijaay la. alhamdulilahi rabil alamin. sama nijaay lenk la moo sama yaay ñoo bokk ndey ak baay. alhamdulilahi rabil alamin. ñoom nag kese la sama maam am. ñoom la ñuy wax. waaw. moom anamu Gora Diop. waaw Mangor Diop. waaw. man euh, li ma ci wax nag maam toor bi moom xam naa ñoom góor lañ ko bëgg a teg. góor lañ ko bëgg a teg. waaw waaye ñoom ñaar dañuy ñaar ñu yem daal. ñoom ñaar dañuy ñaar ñu yem. parce que man gis man mii wax ak maa ngi sundoo sama juróom fukki maa ngi si benn. sa cinq quarante neuf ans. quarante neuf ans maa ngi sundoo te musuma gis góor mu musuma ko teg bët. mosoo gis góor mosoo ko teg bët. déedéet. te sa nijaay leen xale mook sa yaay bokk ndey ak baay moo sama yaay ñoo waaw mais lu leen ñii ñii lu leen keppali dunq ne leen fër léegi nag man bi may koy bi may man damaa judd ay sept ans laa nga dem daara waaw mais bi may dikkee dégg ñu wax turam waaw ad ma fii di nekk sama yaay nekk sama yaay nekk sama yaay samay nelaw samay nelaw nag waaw après ci la voyagé ay deux mille ci la voyagé man waaw dem bi taalibe bi ma demee taalibe ba ñibbisi sama de sama ay deux mille deux mille trois bi ma ñibbisee. waaw. dellu deux mille quatre moom góor ñëw na ba fii sama kër. sa kër ci itali waaw ñëw na fii fii Sénégal. Sénégal. fii Louga ñëw na ba sama kër. waaw. laaj sama yaay sama yaay nelaw na. ndeysaan. après mu dellu moom nag bi mu delloo. waaw. woo na ma Italie ba jot ma bañ waxtaan. waaw. waaw wax na ma ay situation yi mu demee yépp waaw ba nee na sax bi dikkee moom nelaw bi seex naa nelaw naqar na ko ba après dem na yoonu màkk aji pour pour pour euh, loolu naqar naqar mu ko mu ko ci def ndeysaan ne ko beneen màkkaa ngi nii nag après nag léegi nag bi ma ba fintool ma ba fintool dañuy déggante téléphone boobu ñëw yéen a ngi déggante téléphone chaque année boo ñu naa ko téléphone woo awa téléphone dara jotu leen mais lan nga ñaar dañu ñaar ñu yem ah mais comme ñoom ñaar kenn ku ne bàyyi say bokk ñoom ñu ngi ñu di dund rëy. seen i bokk bu bu bu jël toor bi bu ko jox góor a góor a. non non toor bi góor a dañu expliqué ni mu demee te góor a moom te góor a moom fi mu toll nii ñun ñii ay jarbaatam ñun. waaw. ñu ngi suul fii Sénégal nekk fii waaye nag ñu ngi déggante ñun. yéen a ngi déggante ak moom. sama rakk bi topp si man. waaw. chaque mois dafay dem dara dem kër vacances. waaw mais est-ce que mënu leen a wax góor a ne ko mu mottali kóllëre. ah en tout cas kóllëre moom moom moom moom moom en moom moom xam na ci lu nekk moom ñu ngi si jàmm moom. waaw mais boo nekkee ci jàmm di jotanteeg say bokk te sa jabar jotantewul ak ay bokkam est-ce que yow doo war a mën a jël sa jabar forcé ko ne ko del jotanteeg say bokk. ah mais forcé ko nag nga nag jamono léegi dañ moom même ki euh, sa doom sax mos a jóg forcé daal xëy na moom awa moom. xayna na awa moom am lu ko naqar ci ay bokkam bam bam da ngay bokkam wax na len ko sank man len lan moko nakari ba mu ni wa ay mom bok boppam wa wa mais mon grand mon grand. ay bok bok aw si boppam. ñu ñoo wara set nak awa ba awa len dag mais goor mom sama la. sa sama la. 2004 la yaa ngi Louga jusqu'à présent di ma woo. dimbali ma ngir yàlla ak yonent bi bul coupé ñu jox la sama numéro. waaw su ñu jullee tisbaar ba pare ma déggante ak yow parce que il faut lii ñu topp ko. incha allah. jaajëf grand. merci beaucoup jaajëf grand jaajëf waa Louga. lii rek lañ ñuy jàppale ci émission bi ah dañuy toog wax ñoom ñoo ñuy leeralal ndijaayam la moog yaayam a bokk ndey ak bàyyi bu ñu jël toor bi jox ko góora ba nga xoolee ci commencement ba ba léegi lan laay wax góora maa ngi lay ñaan njekk ngir yàlla kii na déggante ak ay mbokkam lan la def ay mbokkam ba déggantewul ak ñoom euh, lan lañ jote yàlla moo xam lan la jote ak yaayam ba yebal jëkkëram nekkoon génneel ma sama yaay ci biti yóbbul ma ko ci yoon nangul ma kayitu kër gi na sama yaay ji na jooy na deete duma ko yëg duma ñëw ñoo xam yàlla rek a xam mais est-ce que ça vaut ñu dem seetaanaat élément bi génnewaat Awa Diop ndax bi photo bi génnee xam nañu fan la nekk yéena ma ko ñaanal léegi yàlla nañ ci yàlla may ndam ndam laa ngi tàmbalee ñëw yàlla na ko yàlla continuer ba kenn ku ci nekk ñëw taxaw akolaat sa morom tey suñ borom santati rek su ma la santul du ma gor de may leen ma élément bi dama amoon problème sama tante bi bokk ak sama yaay ndey ak baay daf ñoo réer lu ëpp fanweeri at ak juróom kenn xamul ci li mu nekk moom ak njabootam maa ngi doon ñaan nag ku ko gis di góor di jigéen di mag di ndaw rawatina nag ña nekk ca France nga xam ne fa la nekk Awa Diop lu tudd dafa sëyi woon boroom këram moo ko ñëw jël fii. ñu mhm. may ko ko mu yóbbu ko booba amagul doom. Mhm. ba mu demee nag fa la ay doomam juddoo taaw bi mu ngi tudd Ndey Mariam Diop. Mhm. ki ci topp sama yaay ko tuddee mi ngi tudd Assu Diop. ki ci topp euh, magam bu góor la ko tuddee bu gaañu woon. mu ngi todd Ibrahima jóob jëkkëram mi ngi ñëw guddeeg bëccëg waaye duñ ko gis du ñëw ci ñun. du wax ak ñun. du ñu bind du ñu xool dañuy dégg rek na ñëwoon na fi. buñ bu ñu dégg ne delluwaat na bu yàggul sax dégg naa ne ñëwoon na ba caaroy mhm. waaye agsiwul fi ma dëkk mhm. xamuñ ci moom dara ndax li tax euh, gisatuñ ko mhm. dañoo toog benn bis rek mu ñëw boobu sa maam bu jigéen mi ngi dund bi mu nuyoo sa maam ne ko agsil mu ne ko déedéet agsiwu ma de sa maam ne ko lu xew xanaa jógewuloo France mu ne ko ñëw naa bu yàgg waaye hôtel laa dal muy goroom muy gorom waaw mu ne ko hôtel laa dal donc ah lu xew te keur gi ne yàmbalang bobu ñu ngi tabax keur gi. Mhm. boobu maag sam mam rek ñoo nekk ci keur ga. Mhm. mu ne hotel la dal ñewuma fi de mu ne ko kay tok mu ne ko dede toguma mhm. lima indi won moy sa dom momu yoni neena nga genn keur gi. sa mam ne ko ah genn keur gi ci kaw la ndax keur gi mom ci bayam la ko donne won te man ma ngi don sey ak bayam bo ba legi musuma fe def lu ñaaw musuma fe wax lu ñaaw mu ne ko lool yëpp xawmu ko. neen dal nga jox ko keuy di te nga genn keur gi. ba no sa maam bañ mu dem ci yoon moom jëkkër ji mhm. yóbbu ko ci yoon mhm. bañ demee ñu àtte leen xam naa dafa am na fu mu jaar mhm. ñooñu noonu sa maam comme noonu la demee daal génnal kër gi léegi mu génn sama yaay nag jël ko indi ko këram moom yor comme man nag man mii la yoroon man booba fekk damay jàng sax mais damaa mujj dagg sama jàng sëyi ndax mun ko yor ndax moom dang moo nekkoon naqar boobu bis bu ne muy jooy dinaa jooy dinaa dee rek te du gis sama doom ji ay ki ma tàqaleeg sama doom ji sama doom ji fu mu nekk lu nekk mu di ko wax. naqar mm-hmm. woowu gannaaw yàlla moo ko rey. yaay ji encore génn na àddina. génn na àddina léegi ana kër gi. kër ga kenn xamul ku ko yor. kër gaa ngi fee mu nekk. Mm-hmm. kenn dëkku ci kenn dëkk ay luyaasaf dëkk ay locataire ñoo fa nekk. Mm-hmm. ku dëkk bay jeexal rek dem sa yoon keneen dëkk ñun xamatuñ ci dara ci kër ga. mais naka la def ba jot ci kayitu kër gi. Ah, bi mu ñëwee lañ ko ko jox yoon moo wax ñu jox ko ko. jëkkër ji góor a jóob la tudd. moom sax. mën naa wax ne français la daal. ci li ma mën a wax. Mhm. Mhm. ñoo bokk nag sama mbokk la moom. Mhm. mais presque bi ñuy dem France boobu xale bu tuuti la. dañuy dégg dafay ñu naan jëf ko tëj dafa bon buggul ay mbokkam mbokk yu bëri koo ne dem fa sax mu ne duma fa dem parce que ku góor ki baaxul doo fa dem seetal ma ko mu ne foofu duma dem foofu xaw ma nag lan la loolu dañuy dégg naan daf ko tëj ak nanguwul mu dem fenn ak nanguwul mu dem ci benn mbokkam ñun fi mu ne famille amuñu kenn. ñooñ lañu am te xamuñu leen ñoom xamuñu maa ngi ñaan nag waa France képp ku ko gis ku gis Awa Diop ak doomam Ndeye Marème Diop na ma ko wool man mii moo ma yar man doomam Ndeye Coy maa koy seet d'accord loolu laay ñaan looy ñaan jëkkër ji itam jëkkër ji tamit maa ngi koy ñaan moom góor bu fekkee ne yow yaa téye sama tànt bàyyi ko mu ñëw ci ñun sa maam jooy na ba dee nañu dimbali ngir yàlla fu mu mënti nekk ne ko mu ñëw nañu woo sax buñ ko gisul sax nañu woo ñu ñu dégg kàddoom rek moom rek laay ñaan yàlla ndax dafa yàgg fanweeri at ak juróom kenn gisu ko xamuñu ko amuñu kenn sama yaay ku mu waxal mu ne ko amoo mbokk amoo dara amuñu dara ndax moom rek lañu am ak njabootam loolu rek laa ko ñaan fu mu nekk ay tànte yaa ma yar foo nekk rek nga woo ma man day cooy maa lay seet bëgg laa gis. en tout cas man Ndeye Coy maa lay seet bëgg laa gis euh, fi mu jeexalee rek war naa tax kenn ku ci nekk nga fóot sa xol delloo si waat te def ci ay jéego jarbaat dugg na amaana bàjjen a ngi toog amaana tàntaa ngi toog amaana keneen ak keneen mi ngi toog mën naa doon loo xamante ni sax du yegg si ci loxo soxna Mbayang ngeen def ko jaf ci jéego ba wax ma fi mu toll yëkkati naa ko téléphone ndax yaa ma yar te nit day fàtte bu du woon teg fàtte jigéen du jaaraat ca kaw taabali hôpital jee di matu bu du woon teg fàtte yaay du jéggal doomam ba di ko ñaanal yàlla bu du woon teg fàtte yaay euh, yàlla sunu borom du def ci diggante ñaar ñoo xamante ni tey kenn ku ci nekk gàddu nga ak sa morom jaasi te bu subaak jàmm ak salaam ñu bokk ndab li di ko añ kon yàlla na yàlla def ci sunu xol fàtte yàlla nañu yàlla dénk xolu muñ yàlla nañu yàlla taxawu parce que jarbaatam dafa indi version de version la indi nag dama leen di wax de même kii témoigné sax dañu indi version jarbaat ba indi na version góor a dinaa dégganteeg moom ndax xam naa ni jarbaatam am na sama numéro te xam naa ni jóoba juba dina ma woo wax ak man lu leer ndax gisuma ba ñu ko tàmbalee ak léegi wax bu ñaaw boo xamante ni wax nañ ko exemple ak leçon nag danañ koy wax pour ñeneen ñi mu dalagul waye di wax na itam rek ne ñom ki seen walu bop nañu delo ci lepp parce que goor bi mu ñewé fekk sëram bi mu bokkal nday ak bay di yaay jarbat bi genn adina daf ko joy metit lu ko ba mu jaral ko mu dem italy ga mu nekkon xoma France joge fa wajal fa Makka dem Makka ñaanal sëram ngir mu genn adina ndagam sëram la ko nak nag asuma ak yaay ki nga xamanteni moko may soxna mu jall ci ginnaawam juróog mom ak njabot njaboot goo xamante ni faxas dootu leen dindi fomp dootu leen dindi waaye itam dara ñaaw dootu leen dindi ci njaboot gi rek la ñuy bokk awa jóoba leen jur awa jóob diwa ko jur ak lu awa jóob jote ak ndayam ak lu awa jóob jote ak ki nga xamante ni mooy sëram loolu dootul effacé wu kon góor maa ngi la koy ñaan ci baaxu Mouhamed mi nga xamante ni demoon nga ziyaare ji ko ñu déggante ñu rafetal diggante bi c'est facile la mu seq ak euh, wajuram wala la mu seq ak sëram bi nga xamante ni moom kese la dese ba sër ba réccu ñëw di ko di ko wër sër ba bu mu ko gën a gore bu mu ko gën a gëm yàlla te it dañuy wax ne xuloo boo xamante ni xuloo famille la ak xuloo bu dul xuloo famille ka ca jëkk a bàyyi yàlla da koy defal yiw woo xamante ni foo ko natt weesu na ko rawatina nag ñaar ñoo xamante ni ñoo bokk ndey ak baay seen ndey a ngi ci biir suuf jàkkaarloog ñoom di leen xool seen baay a ngi ci biir suuf jàkkaarloog ñoom di leen xool nag ñu boole koog nag nekk fa ak seeni nawle ndax biir suuf boo fi nekkee nekk nga fa koo sëyandool nekk nga fa koo jëlandool soxna nekk nga fa koo xamante ni mi ngi bàyyeek njabootam ci kaw suuf yow nga bàyyi sax njaboot ci kaw suuf kenn ku ci nekk nag saa yoo xëyee sa bët mi ngi ci sa njaboot kon am na ci loo xamante ni sa nawle bi nga dëkkal aljana soo sañoon du ko gis ci sa njaboot soo sañoon du ko dégg ci sa njaboot te am na tàlli goo xamante ni bëgg nañ koo tàlli tey jii ci tàkkusaan bu fekkonte ni woon wax ji yemb na ba ki di awu job wo seureum ne ko bana lepp dinañu deggante ñewuma nak ndax njabot na ma sama borom kër ak lepp nangam sangam kër ga bama ma koy nangu sama yaay li moko waralon ak lé ak lé ñu waxtaan ba rafeto lima ma leer mooy seen yaay fu mu tedd bu len rek ñu dem ci kanam kon nañu faté dinañ ci wat dinañ ci ñew luñ ci am tay ñu ngi ñaan ci katunu yalla na ci ñepp def ay dog ba luñ ci am tay rek inshallah suba ñu jàllale leen ko mu doon lo xamanteni lu neex ci xol lay doon wax naa leen ne góor a génne fotoom duma ko def parce que dañ ma indil version ma nga bitim réew di dund du ma génne fotoom di ko euh, wasaare ki tali bi duma ko def waaye nag mi ngi may dégg te xam naa ne mi ngi may seetaan te mi ngi may bàyyi xel te xam naa ne borom xol bu oyof la ndax kenn du dem jàkkaarloo kaaba ba pare sa xol bi xeer di ci nekk ngay dëgër duma ko gëm kon góor a rendez-vous tout de suite buñ jullee tisbaar ba pare may remercier ñëpp nag. di gërëm ñëpp xam ngeen ni xol seddati na ndax bunt booy liggéey ci dara yàlla di la ci may bunt sa xol day sedd waaye maa ngi giñ ci barki Seydina Muhammad ci talaata bi ñu nekk yool buñ ci am ci sunu borom rek yàlla naa ko bokk ak képp koo xamante ni yaa ngi toog di ma seetaan rawatina techniciens yi nga xamante ni technicien hors pair lañu kenn du ñoom waaye nag du ñu gërëm ki xam taal bi ki taxani toog El Hadj Ndiaye borom wuduru Ndiaye beeg soxnaam Marème ñoo dugg ñaay bi ba cin li wañax ñu am lii tey kon jàmm ak jàmm ba suba. incha allah may remercier bu baax a baax madame nañ ma ko baal euh, numéro euh, nekk am nekk 77 gis nga ko de man damay jiwaat di jëg ngénte xam naa maa ne fii damay fekk léegi ne ma jugal fii numéro téléphone am 77 535 70 39 77 535 70 39 muy def yu oyof yu baax yi nga xamante ni ay xeetu mbël fa la rek dañ sonn ci lay jaar madame Lo nekk fa la yof APEXI donc jàmm ak jàmm mbokk yi asalaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakatuhu fi amaanillah yaa ngeen